Assane maa ngi lay nuyu bu baax. waaw maa lay fay jili euh, tey ñu ñëw daje ci loo xamante ne tiis la mu dal monde làmb yëpp génn àdduna Père Balla Gaye yan témoignage nga ñu ci mën a defal. waa Père Balla Gaye maa ngi ko xamee stade Assane Diouf mu téye ñoom Balla Gaye ñoom Elton ñoom lat kii ñu ngi koy waxee Doubalès di foofu yàgg ma gëm nag wax dëgg yàlla. di ma dénk ay xaleem ma ciy tëgg mu nekk jàmbaar gëmën nag mbër mu nekk jàmbaar moo taxan mu bëgg bala Gaye 2 donc moo njëkk ubbi école de lutte Sénégal gëm boppam donc tey jii nii dinga dégg ak mbaaxam di nga dégg ay jëfam te alors que mënoon nañ ci jàpp avant loolu donc comme yàlla jël na ko nag. dañuy wax li nga xam ne moom la doon def si ñun doon nañu jàppale bi mu nee ci ay rajo di ñu invité xam nga bu ñu soxlaa woo ñu jàppale ma si diw ñu tëgg diw donc da koy ñaanal rek ci barki Serigne miñ gëm barki Seydina Mohamed miñ gëm yàlla yërëm ko xare ko àjjana ndax boo dukkee boo juddoo sa réew lu ne nga defal ko sa réew loolu doy na ndam tey jii am na mérite ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm ba fam jëm du fa gis dara ci barki Seydina Mohamed jaajëf.